xam yi ñu am moo ñu xaw a tardeel tuuti xam naa comme suba ci bëccëg bi am na waxtaan xëy na bu suba ñu seet liñ ci mën a yeggale ñu yeggale ko ndax mu ngi guddi te nit ñi dañuy soxla récupérer pour suba ñu mën a ñëwaat yeggale seen waxtaan waaye ma di leen yégal rekk ni seen teewaay fii lu rëy ci njaboot ji la parce que dañoo bokk lépp ànd di xeex li ñuy xeex xëy na am na ñu naan waaw sëñ Moustapha moom kenn gisu ko wala kenn déggu ko li ngeen am yépp maa ko def wala bokk la ci ëpp maa ko def te ku may indil kaamil ma waat ko waaw dafa tolloog rek nag tàmm sàcc moom ñun loolu xam nañ ko bu yàgg ci Serigne Cheikh ak Senghor la woon Serigne Cheikh gagné élection yi ñoom Senghor sàcc résultat yi donc loolu du ñu bett jamono yi ñuy ànd ak Ablaye Wade am na élection yu am ñu ñu gañe ko ñu sàcc résultat yi te keroog góor gi woo ma woo Ablaye Wade ñu ñëw mu ni dem leen ngeen forme seen gouvernement wu bopp waaye ma gis ni ñiñ ko séqaloon mel na ni dañu ñemewul yi affaire bi que mooy former seen gouvernement wu bopp bañ ca jógee ñu waxtaan ci maag moom ma defe ni kon nag baatu wi Askan Wi gisuma ci jamono bi lu ko gën a jaadu lu ko gën a am solo parce que lépp lu ñu mën a def te ànduñu ko ak askan wi presque dootu ko jar waaw bu ko defee kon nag ngeen jàpp ci li ngeen nekk rek ñun xëy na ñu ngi ci daara yi waaye li ñu war a jàpp ñu nga ca dégg na Sonko bii mu wax ca wax yu am solo ca Casamance ma di ko yëgal nag ni y délégation bu jóge Casamance ñëw nañu ci gàmmu gi lu mat cent vingt personnes waaw waaw wa tabaarakallahu jàmbaar dëgg lañu xalifa boo gisee kon Barthélemy du question sax contribution bi mais dañu bokk lépp donc ñu accompagner ko farata la incha allah li ci des nag mooy njaboot yi kenn ku ci nekk taxawaay boo amoon dangay yokk taxawaay ba ndax am na loo xam ni jeexamul waaye nag sa yaa ci yow bese nga ci ëllëg yàlla dina def li ñu bëgg incha allah waaw ñu sant leen yéen ñëpp sant gan yi fi ñëw yëpp